ba dañuy dikk ba ci jumaa ji war a siyaare war a teewlu jumaa ji ku fi ñëw waroo sax seetlu ay caméra wala ngay wut ko la photo waroo koo tal dangaa war a am na ñoo xam ne bu masaan ku mel ne so fa mu daa siyaare soli na suñu sol étali ci dëkk bi bari na am na ci mag ñi ñoo xam ne bu ñu masaan daanaka fi xaw a toll kon si boobu amagut fa la ñu toll siyaare fa sëñ bi ngir warmaal ku baax ki kon dugg ba ci barabu Sëñ Tuubaa nag yoru sa appareil di filmer maa ngi ci barabu Sëñ Tuubaa loolu ay teggin fekke fekkewu ko yi ci xewoon daaw ñëpp gis nañ ko kon waa daayira Muxaddamatul Xidma ay jàmbaar dëgg ñoo ci ne ndax ñoom bu nit ñi di màggal seeni kër di toppatoo seeni ña ngi fa bàyyi seenu njaboot ne ci jumaa ji kon ñooña ñëpp war na yoo xam seen taxawaay waaye na leen ci nit ñi jàppale ndax nit ñi itam da ngay def junni yu baax def lenn ñoom te ñu fàtte lépp te doomu aadama du mat kon nit ñi nañ leen di jàppale ci kuñ gis xam ne col nga col gu jaaduwut walla mel nga melokaan wu jaaduwut ci war a ak soxla ñu fexe ba téye la wala ñu yóbbale ci ñoom ndax kenn nit wala junni nit mënuñoo saytu ay millions nit kon lool itam nit ñëpp bàyyi xel ñi màggat si itam nañ gën a jox ma jumaa ji xam ne fi ñu jëm seen yaakaar yi àdduna ak alaaxira rek kon loolu itam ñu ngi ciy soññee bu baax a baax.